Guajira. chers amis fidèles internautes Sunugal 24 bu yaatu la ñu am nuyooti leen seen jotaay bu am solo bi la di xalima gu ñaw mbégte beneen la ñuy am itam di ji recevoir koo xam ne du ci gan du ganit ci ñun du gan ci yéen Serigne jaxate borom solution maa ngi lay nuyu di la ziar aouzu billahi mina sheytaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin saddid lisaani wa saddit mante xii waxe nii bi ixdaami ma qad kaana wujdaana man jaa bi xasanati falaw xasru am saaliha wa man jaa bi sayati fala yujsa ila mislaha mm-hmm. saddit lisaani nawir janaani safil amaani wasit baraay waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi teewlu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ Mansour. jërëjëf sëriñ Jaxate ndokkeel la ci koor gi nga xamante ni dugg mm-hmm. dugg nañ ci. Mm-hmm. et puis bàyyi la nga passé commencé waxtaan bi. waaw koor gi de dugg nañ ci eh, bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. yàlla nañ ci jénn ci alhamdulilahi rabbil alamina di sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala asa wa jalla jalla ci kàttan nag nammeelam mi nga xam ne ci yërmandeem la ñu dimbale ñu fekk ci koor gi incha allah yàlla nañu dimbale luñ ci jëf jublu ci baax mën nangu ko fëla ko foo xam ne yàq mënu faa yegg incha allah lépp loo xam ne njuumte la ci ñun rek mu jéggal nañu ko bañ ñu ko toppee ndax foofu macha allah mhm. xam ne sëñ jaxate seet moo ci teg loxo waaw dëggu ba léegi wala waaw seet de man nan ko mhm. euh, ndax réew mee ko wax bari waa na ñoo xam ne sax danaan yow moom xam loo mënul waaye seet bokk si ba tax na wax dëgg yàlla lu ma leen wax ci seet rek doy na ci moo xam seet lan bëgg moo xam listixaar listixaar seet ak listixaar nag yàgg naa ko wax seet différence rek bii da nga koy fanaanoo bii nag mën na si laa tontu léegi ni ci kàttanu alxuraan waaye bu mu ci mën a doon rek lan la ci wax moom dara du ko dindi. lan mooy dajee ci nit ki ba tax mu war a mën a seet di gis comme ni ngay gisee parce que. Serigne mmh. Diakhaté bëri na événement yu xew tey démb la ci waxoon tey ñu gis mu demee comme na mu ko waxee woon secret bi lan la. waaw loolu ginnaaw bi ñu sant yàlla euh, seet ñaari dañ koy jàng comme ni ñuy jàngee alxuraan di jàng yeneen fànn xam-xam yi wala mën a kii jàng liggéey ba ci métier mi ni ñu ko jàng ba maîtriser ko noonu lañuy ñuy seet bu dee listixaar nag tamit noonu la am ay kayfiyaat yoo xam ne si listixaar la jëm. Mmh. waaye bu dee wàllu listixaar suñ borom eh, day day sukkandiku ci ak sell daanaka ñoo gën a sell rek ñaare sa gis noonu lay gën a yaatoo bari waa na loo xam ne day am bàyyi xel sa digg ak sa borom mm-hmm. am ak cell te daf ci baax mu daanaka mooy lépp ndax bari waa na loo xam ne doo ko xool sa yoon da sa nekk mm-hmm. ñaare suñ borom dala dala koy wan loolu sell moo koy mayee mm-hmm. bari waa na loo xam ne tamit sa xool bu sa xëyee sikk sàkkal jax-jaxe suñ borom wax la ci leer nañ loolu ñaari moom euh, ibaadaat gu sell sa diggante ak suñu borom moo koy maye bu dee seet nag ay téer ku sell ku man la man ci mm-hmm. wàllu taq sa man na ko mm-hmm. bu fekkee jox nañ la secret bu wér euh, yàlla dogal tam fekkee yaa ngi liggéey tur yàlla bu tur wuyu la moo xam turu jinne ba turu wuyu la loo ko laaj mën na la ko wax ma gis sa euh, sortie yu bëree bëri bu ñu la laajaan ci Ousmane Sonko mu mel ni toujours da nga daan avertir. Mm. que maanaam na wut ay ñaankat na gën a taxaw ci wàllam ci wàllu mm. ñaan ci wàllu nangam mu mel ni li muy dund tey nii yow bu yàgg nga ko gisoon. waaw Ousmane de xëy na suñu borom moom am na lu ñu ci xamal loo xam ne xëy na euh, mënees na koy wax euh, ci télé am na loo xam ne mënees ko wax. Mm. parce que am na ñoo xam ne xëy na ay noonam lan am na ñoo xam ne tamit xëy na ay soppim lan yoo xam ne boo waxoon dara buñ koy yëgee mën nañ la koo tas mm-hmm. ndax bari waa na loo xam ne tey ban koy wax yaakaar naa nit waxu ko xëy na barab bii moom am na ñu man mm-hmm. seere mm-hmm. ndax man sama lépp fii laa koy defee bu loolu jàllee comme li ma waxoon ne mbirum euh, mbirum kii mi aji saat dina si am tam ba ma ko wax yàgg na ca la ma sukkandikoon tamit lu ma suñ borom waroon loo xam ne laaju ma laata laata loolu lu jiitu avant mbir mi xew nga ñu wax ne mbir mi dina xew waaw booba tamit mbir mi xew damaa géntoon ñu ñu jam koy paaka mhm. bu ñu ko jamee paaka tamit gannaaw lii mbir mi xew mhm. mbir mi xewee tamit suñ na si dina si am ndam mhm. loolu mbirum gént la ma dëkki woon damaa géntoon ñu génn ko réew mi waaye danoo jël kaamil alxuraan jox ko ne ko say bagage la bokk ci loolu laa sukkandiku ba xam ne kii day am mbir ndam ci lii parce que borom defal na ko ci ndam Hmm. jàpp nga ne maanaam jafe-jafe yi mu nekk nii dina ci génn ba war a mën a bokk ci ay élection hmm. présidentielle 2024 comme ne ko ñu bëri bëggee. waaw xam nga Ousmane Sonko dafa naqaree waxee ndax réew mi dañ koo bëgg. Hmm. man mii di wax yow tamit ku ko ñeewantu laa ku ko bëgg laa. ngir jëm yàlla ndax mooy ki nga xam ne eh, fi mu yóbbu ci politique nit mosuma faa yóbbu ku dee ak sa bàmmeel waaye man ba léegi gisuma am euh, toog si réew man man. waaw loolu ma loolu moo tax ma laaj question boobu. parce que ah. maa ngi gis sa ay jotaay yu bëri yoo xam ne. Hmm. toujours da ngay wane ne Ousmane Sonko ak loo ko ko yéene yéene. Hmm. gisagoo ak yegg sim ci pouvoir. waaye faral di wax ne émission bi mujj def. Hmm. daan na Ousmane gisaguma euh, ak. toolam réew mi bari na ñu ma woo samay xarit samay fant ñu mu waroo woon wax loolu nangam réew mi Ousmane lan bëgg boo bëggee am dara. nangam nangam da ngay wax Ousmane doon tudd dëgg. ma ne leen am na foo xam ne boo ko juddee dareti góor daw sa yaram am na loo xam ne doo ko mën wax loo xam ne leer na la teraa nga tax ma koy wax wala mhm. ak yàkkamte la parce que du ma lekk lu du sama wàll mhm. te loolu laa gëm ndax wa maa min daabbatin fil mhm. li nga war a lekk lépp di nga ko lekk kon tamit warumaa wax loo xam ne damay bëgg lu neex nit ñi saa boroom laa koy seereel mi nga xam ne loo wax di nga ko waxaat la yowmal xiyaam mhm. wa kulluhum aatihi yowmal xiyaamati farda mhm. bu ma doon joxe moom laay jox réew mi bu ma doon woote moom laay wooteel mhm. waaye ba nii may wax mais gisagoo yomb yomb ci mbiram gisaguma ko réew mi moom du ma wax du ko jël de waaye 2024 bi moom suñu borom du ko fi mais sañ jaxate loolu yéeme na waaw benn nag Ousmane nag li tax nit ñu bëgg ko dinaa si joxe mën naa si wax secret yu bari yoo xam ne xam-xam lay doon boo xam ne nit du ko dindi waaye am na yoo xam ne si ñëwuma ko wax. parce que boo xoolee xam-xam euh, biddew boo ko maîtriser. Mm-hmm. ñaari li ngay wax de leer nañ xam-xam biddew soo ko maîtriser am na yoo xam ne bu ma ko tojoon fii tey nit ku ko bëggul mën na ko saa jaar yàq. dinaa wax secret boo xam ne ba nga juddoo ba léegi sëriñ bu mos a ko fi su koo wax. Mm-hmm. bëriwul sax la ma si wax Ousmane boo seen nit ñi bëgg ko mooy siro jamono ji jamono ji Ousmane mooy siro jamono ji. xalaat mm-hmm. ku li xaar ku neex ak ku mu naqar koy bëgg. ndax hmm. soo bindee tey usmaan Sonko. moo hmm. jàpp Allahu xayul xayumu fattaaxu rasax juróomi tur yàlla yi. moo tolloog Ousmane Sonko hmm. ma wax ma ma ma ma dimbali ko bëgg. yàlla laa koy seeral ba koroog ñi wal buftu bi. Ousmane Sonko bis bu ñu ko àttee ci yomal xamis. ma am ndam ci ñoom duñ ko si mës a am ndam. bisu alxames bisu alxames buñ ko si dee àtt musuñu si am ndam. waaw xam nga loolu xam-xam la boo xam ne. Eh, ñoom ñi nga xam ne ñoo koy plainte di ko àtte mm-hmm. si mm-hmm. ma laajoon mm-hmm. ma jox leen yeneen bis yoo xam ne buñ ko jox dañuy am tam waaye alxames yeneen bis am na yoo xam ne dama ko wax waaye alxames gi mën nañu gisaat ba am ci ndax boo xoolee yoom alxames moo jàpp Ousmane Sonko sëriñ di la ko wax te ku xisaab gis yoom alxames moo jàpp allahu xayul xuyum fattaahu rasaahu gis nga takkusaan dong eh, boo ko takkusaan alxames boo doon liggéey allahu xayul xuyum fattaahu ci 1737 moo jàpp Ousmane Sonko moo jàpp turu yàlla yu ma wax balaa alxames bee ñëw di nga gis xéewal boo xam ne dalay bett. est-ce doon loolu ñu ko xamul. mais mais dernière woote bi sëñ Jaxate bisu alxames la woon. si ànd moo doon le bi. Ah. bon ñu gis ni mu demee est-ce que jàppoon ne am nañ ci ndam keroog ci kawam. parce que toj nañ otoom mënuñ cee am ndam jàpp ko voilà ba mu tëdd ci hôpital ab diir. gàcce lañ ci am déception lan ci am lan bëggoon tamit bu fekkoon sotti na du baax. waaye seen pexe yooyu moom duñ si am ndam bu dee ba ma bëgg am ndam si Ousmane Sonko nan fay bàyyi alxames dem si yeneen bis. Mhm. waaye duñ si mas am ndam parce que mooy nit ki nga xam ne nit ñoo ko bëggal boppam loolu nag mbir la moo xam ne tamit lu ko suñu borom dimbali mooy siru jamono. voilà te Ousmane ci sama takk-takk. Mhm. ku am ismu saati la. liggéey maa ngi jégalu sax ma naan lasaraar ku liggéey tur loolu moom. Mhm. xam ku wér laa ci xam. ndax da ci am ci loo xam ne tey eh, bu fekkee na yaa ngi liggéey tur yàlla rek. nit ki liggéey tur boo ko gaaree da nga xam ne kii mu ngi liggéey tur yàlla bal lu mel ne ko rek ban tajee otom bi bu fekkee am nga seetlu mhm. yënguwul rafut loolu yombut mhm. loolu ñaare ki ki liggéey tur yàlla rek yàlla ko defal foofu baatin feeñu fo ah moo tax ma la ki liggéey tur yàlla moo mën a xam loolu mboolem ki liggéey tur yàlla loolu du ko jaaxal day xam ne kii li muy liggéey moo tax yënguwul pourquoi Ousmane sunk ne tëll ci làng gi ñu gis ay nitu daara Mm. dem sax bay créer ay mouvement doomu daara Pastef déggoo la ma la wax Ousmane Sonko am na ñoo xam ne tegal nañ ñetti weer mm. dii ki teraanga dama ko jox naan ma ñaanal ko am na ñoo xam ne dan ma dan bëgg ngir jëm Ousmane Sonko mm. man mii di wax yow ku ma gën a bëgg amut waaye lu ma ko bëgg bëgg te yàlla dogalut mbir ma mm-hmm. du ma ca wax voilà léegi euh, pardon foofu ndax dëgg damaa léegi pardon baal ma baal ma jaxate balaa ngaa jàll parce que damay bañ ñi may déglu ne ndax dafa yéenewul Ousmane Sonko falu wala déet léegi comme li nga ne gisoo vingt 2024 ak falum hmm. ndax am ngay sarax wala boog itam yoon ak i tegtal yoo jàmp ne wala yoo xam ne yii bu hmm. ci jaaree war na mën a jot ci li laa sàkk ci am na yoo xam ne tey ko defoon hmm. kenn mënu koo tee jot ci réew mi da nga ko koy jox ci ligne bi ah, wala ñu jël non loolu du ma ko joxee ci ligne xalaatuma ko sax ndax benn bal nu ma ko mën a waxee 2019 eh, yàlla ci mat seere bi ma moom laa dugal xalwa koroog ba jënnee mhm. ñetti xar laa faatu la bi ma ko waxee sama sëriñ dana ma da doon faatu sax moo ma mas a jaral loolu kon kooku am naa ci yërëm yërmande am naa ci yéene mhm. waaye gis nga loo bëgg bëgg bëgg nit te àpp ba jotu ko da ngay sonn rek yàlla la jot waaye ba xalaa kulli xaal mbir mi moom da ci am dal Macky Sall du dem élection jeexal na ci réew mi Ousmane tamit. naa ne sañ jaxate attention ki barki démb nee na. ah baax na ah bindal. ma Macky bu yàggul dara nee na constitution bi may na ko pour mu bokk. Macky du dem. incha allah rabbi Ousmane gisuguma am toogam si réew mi. waaw mais kan nga ñuy proposé kon fii keneen kan moo fi nekk à part. Ah, eh, seen biddiw mi ngi si biddiw réew mi kenn ki jigéen la kenn ki góor <laughs> ah. bu amee ko jàppale. Ah. man naa am dara si réew mi de. góor gi. waaw mën ma koo xam buggaan ak si dafa waxee tur ma wax la ko de amu problème ba waaye ñoom ñaar ñëpp tey seen biddiw moo gën a taxaw biddiw Ousmane Sonko. Mimi ak kan Mimi Khalifa Sall. Mimi ak Khalifa. ñaar ñi ñëpp de ku ma si seetlu mën naa laa samp boo demee da nga am doom ci kàttanu ko alxuraan parce que ñoom seen vidéo ñu ngi fi bu bu bu demee bu amee himma. Mhm. Eh, mën naa noo am ndax mën nañu am chance pour jàll. waaw ah, am na solo numéro yaa ngi noonu. Ousmane nag moom. Mhm. damay yaakaarul ak demam. su ma ko fenn wax dëgg yàlla. est-ce que <laughs> yéeme na euh, numéro yaa ngi doon affiché wu ci suufu écran bi bu ngeen ci jaaree rek jokkoo ak moom sëñ Jaxate ngir euh, tawféex yi ko borom bi defal ci wàllu xam-xam léegi ñu dellusiwaat ci seet gi ndax daanaka mu ëmb lépp pour pourquoi balaa nga liggéeyal nit il fallait que di nga ko seet. waa damay faral di wax ne ñaare man ku ma seetal dinaa la ñaanal bu ma la ñaanal lu rek danoo danoo déggooti péré. Mhm. parce que la ma lay wax du dañ. yàlla seeral na ko yàlla xam na ko dama mhm. lay wax dara do ci dañ mhm. bari waa na ñoo xam la saa yu ma leen déggee seet dong la tax ma dégg leen mi mbirum sëy mi mbirum kër mi mbir mi mbir bu mu ci mën a doon mhm. ñu bari xam la ci wàllu dindi liggéey wala boog itam def def waaw loolu suñu borom defal na si natiija bu fekkee koo xam ne dañ liggéey ba nga ne moo xam da nga ko kortu moo xam ko sànni si gét bal lum ci mën a doon soo seetee suñu joxaat am na cangat goo xam ne bu la ko joxee benn yoon boo ko sangoo mu dañ am na nga ci yoonu sunguf am na nga ci yoonu alxuraan. Mhm. sangatu un bi ana waaw mi nga fi. Mhm. waaw xam nga day fi doon am na càngat yoo xam ne tey dinaa faral di wax lu mën a xalwatu mhm. wala riyaada ci weeru koor bi am na liggéey yoo xam ne tey ñu ngi ko liggéey ci fukki fan yu njëkk yi am na yoo xam ne ñu ngi ko liggéey si fukki fan yi si bi am na yoo xam ne ñu ngi ko liggéey ci fukki fan yu mujj yi mi ngi mën a maxfiratun euh, ridwaan Euh, raxma euh, waaw mhm. ngërëm mhm. xam fukki fan yi bu ci ne noonu la mhm. bu ci ne am na loo xam ne noonu la si war a liggéey weeru koor yi ñaar dañ ciy def riyaada xaloo duñ ko def si weeru koor parce que dañuy soxla suñu bopp waaye képp koo xam ne dañuy bëgg mën na lay defal ay riyaada ñetti fan waa juróom-ñaar mais programme koor gi à loolu amu ci leneen lu changé ak seen liggéey non non ñun dañuy liggéey lépp ndax lan daan liggéeyee mooy alxuraan ak garab waaw weeru alxuraan teeruwaat ba léegi voilà mu ngi noonu numéro yi ci suufu écran bi ngeen mën jaar yegg si ci jotaay bi fay wax pourquoi sëñ jaxate ku am problème ci réew bi balaa nga am xel mu dal nga dem ci sëñ jaxate sëñ jaxate première dafa mel ni lu koy kontaan law mooy wax jib na fay naaw waa xam nga loolu damay faral di ne réew mi moom wax dëgg fa yàlla fàttaliwuma fu ma toogee trois mois te fay ma fi wax ponkal mhm. réew mi nag daa bëri eh, yàlla defal nañ si natija mu bëri wax nag ci lañ nekk waaw damay faral di leeral loolu sëriñ si bari dañ ko du ma dégg ñu koy leeral te dafa am ab sew sew hmm. fay wax hmm. ak téye lamin bokkun wax mooy wax ji wax ji jug na ba nit ñi yëg ko hmm. yaa ngi dégg nga def loo xam ne wax ji day fay téye lamin mooy mën sóor def nga li nga war a def bëggoon nit ku ko yëg nga téye lamin ba kenn du tudd lool waaye bu mu ci mën a doon boo seetee seen loxo dañ koy dindi ci si amul ñetti fan amul ñaar fan buñ koy def liggéey bi jeex léegi ñu taxaw ci foofu pardon foofu day laal liggéey bu ñuul wala lan moo ko waral. Mm. sañ Jaxate mm. efficacité bi nekk ci wàllu fay wax. Mm-hmm. daal laal garab gu ñuul wala. non ñun liggéey garab gu ñuul alxuraan moom yàgg naa ko wax kitaabun marxum parce que alxuraan efficaceul gaawul. danoo mais sëñ Jaxate bu la ci fayee bu defalee bu la defalee fay wax automatiquement nga gis résultat. maanaam ñooñu seen xam-xam dafa dafa dafa dafa suufee wala benn seytaane nax leen waaye alxuraan amul lu mu mënut xanaa nga ñàkk xam yoon wa. wala nga ñàkk sell sell goo xam ne mën na laa nangul alxuraan damay faral di wax ne ku sa ñaari waajur gërëm ki la jàngal alxuraan gërëm la walaay laa sin loo ci bind si mbay yoo xam boo ñëwee fa ñuy raxas alooyu lañu tibbi jox la bal ba tàkk kin ma tudd boo ñëwee suuf la lay jox nga dem si ñëbillaahi xam nañ kon loolu ijaaba wax nekk mhm. waaw liggéey ba yàlla nangul la mhm. waaw loolu soo ko defee ñaari moom nit ñaanaan suba ak gannaaw suba waaye am na yoo xam ne boo ko def am li nga bëgg. secret bi nga yor ci ubbi nit ba nga xamante ni dafa dafa tàkk. Mhm. moom laa bëgg tey nga taxawal ma ci. wax ma ci loo xamante ni man sama bopp dinaa si gis sama bopp tey tay tey waaw ubbi ko euh, damay mm. faral di wax ne yàlla moom ñëpp la ubbi ah. bu mu bindee nit ki donte ne am na lu may faral di dégg ngay wax itam mm. gëmoo jamono jamono mu naqari yaram mu naqari laa gëm damay faral di wax ne mm-hmm. bari waa na ñoo xam ne day ñëw si yow newal man dama soxla ubbi ko mm-hmm. nga bind loo ay mm-hmm. alxuraan ak lu ne nga bind ko jëm ci fattu ubbi ko daal koy jox sang ko mu sangoo ba sonn amul ñaata nit ñoomee wax danoo sang bu sonn fu ne demoon amul résultat bari waa na ñoo xam ne seen biddiw mu tëju nit ku si biddiw mu tëjoo mënoo ko boo ko bindoon jox ko ko boo ko sankee du dañ mm-hmm. nit ku bu ñëwee di wax ubbi ko da koy xool tabixa bi nga koy xool rawxaan bi jëmm ji ba xam waaw su ko mm-hmm. defee jox ko loo xam ne day raxas yaram ba mu set que ndab lu tax kafe ceeb lu mu neex ne bu ko joxoon bu ñu si tibboon jox la ko doo ko lekk da ngay raxas ndab lu ba mu set wicc nga def si ñam ku ne mën koo jëriñoo. liggéey mën naa téye nit ba mu ba du am. c'est la sàkka. rab la sàkka. est-ce que waaye cat nag moo ci gën a garaaw ndax cat damay faral di wax ne man ragaluma liggéey. Mhm. parce que liggéey bari waa nañoo xam mën na bañ a sonkoo dara waaye seeni rawxaan yi àndal moo tax ku leen liggéey euh, du jàpp mhm. bari waa na loo xam tey tey boo ko sankoon tey ku la liggéey dee lam yàkkun la si ne kafaro am na lim boo ko doon bind boole ko kaani xeeñ ku la mhm. liggéey dee am na loo xam ne tamit ku liggéey dellu ci moom kon yooyu nit mënees na koo fàgg waaye cat nag nit mënu mucc li fekk nit ñaa ngi wax di xool mënoo mucc ci cat bu ko mhm. ñuy sallana min sar sil xasadi max mhm. sari fammi wa sari xayni yàlla mhm. wa siri siri wa siri xalxi insimo ko waxoon bu doon mucc bu doon baax yi tax mucc cat ko mucc cat te moo waxoon ne li ma gënoon bëgg mooy toogoon biir tubaa jàngale waxaan cat moo tax amuma ko kon cat yónnte boo waxoon ne sama xeeti bu dee juróom yi mën ngaa waat na ñett ñi cat leen yóbbu seen biir seen biir bàmmeel mhm. waxoon tamit bari waa na ñoo xam ne tey fi mu toll nii cat leen yóbbu seen biir bàmmeel ndax cat bu rëyut dina saññam waaw kon cat woyofut mhm. ndax tax na cat fi mu toll nii na ñoo xam ne seen alal da yàqu ñu daan ñi naan leen a liggéey ñi rab la liggéey deful noonu rab deful noonu nit ko su daan am bas si yàgg mu jékki-jékki di yàqule na xam ne cat a ko sonal cat est-ce mën na ko def bopp nit day catu boppam. parce que des fois nga gis ku yor benn place am bu rafet. Mhm. saa xëyee daanaka la muy def. Mhm. ca catu rek nga ko man a mën tuddee. ñetti façon cat daa am catu góor dafa am catu jigéen am catu sa bopp am a naqaree dindi nag. nit ki catu boppam mhm. waaye bu mu ci mën a doon soo ñëwee seen jaxaat ñu jox ko cat nag sëriñ bu la mën a wax mën naa la ko dindi ba doot la dal man de mënuma ko waaye nag mën naa la jox loo xam ne cat bu dara du def effet mais man ku la dool ba la fa dal du def waaye nag koo ko man ba man ko trois wala max un mois na nga dem sangu ci waat ci cat macha am na solo numéro yaa ngi doon affiché wu ci suufu écran bi surtout wàllu cet dafa doon loo xamante ni lu mu yitteel lool la parce que dafa bëri ñoo xam ne seen gàllankoor yi ñuy am ci seen wàllu liggéey la wala boog itam ñi nekk seen wàllu sëy la li ci ëpp cet moo leen koy yóbbee sëy laa wax hmm. nga am ci cër moom itam ñi am jafe-jafe am boroom kër wala ñi am jafe am soxna waaw moo xam sëy ba naqari moo xam jigéen koo xam ne daa bëgg a sëy te xamul lu ko téye mel na mhm. war a mel waaye ku ñëw fëgg dellu ba rab dana ko def cet mhm. dana ko def dëj ko tamit liggéey ko tamit dana ko def waaye bu mu ci mën a doon kon ni ma ko waxee boo ñëwee ñu xool ko ba xam solution su kat suñ borom bu dee jigéen ñaari jàngat gën lay jox du romb un mois mukk te amoo ko am na njaq su ma daan waxee njaq si indi naa ko Dakar mi ngi Dakar gii. njaq see ngi Dakar. yàlla xam na ne mi ngi Dakar képp ku wasangoo muy góor mi. yaas ñu pare suba ñu dem a wa rabbal kahfi. boo <laughs> génn doo am. maa yóbbu dinaa dinaa la indil yaas. waaw loolu moom mi ngi. ci njaq si incha allahu rabbi boo la quoi célibataire. bu dee góor oh, xam bu dee jigéen ko saa mu ci ma a doon. ki nga xam ne tamit dafa doon sëy ba si yàgg daan am doom ba si yàgg mën na ko taxaw. Mhm. tamit bu seetee si njaxate incha allahu rabbi des na ko xool ba xam góor gi man yu moo woyof mhm. wala jigéen gi moo feebar ba ba mu ci mën a doon suñ ko xoolee mhm. am ci solution buñ ko joxee suñ garab dina jël am ko bu dee jigéen koo xamante mës am te yàlla nam ma am doom doom si mhm. kàttan noonu xuraan buñ ko joxee leeral googu dee ci sëñ jaxate rek laa koy déggee waaw waaw yàlla nam ma ci moom mu am doom waaw day am lillahi mulku samawati wal ardi yaxluqu liman yasha inasa ba ca aaya ba man yàlla may borom asamaan ak suuf su ma neexee ma la doom yu góor kase su ma neexee ma la doom yu jigéen kase su ma neexee ma la góor ak jigéen su ma neexee ma jaasira la mhm. kon am na ñoo xam ne yàlla na mun si ñoom jëkkër yàlla na mun si ñoom soxna yàlla na mun si ñoom doom macha allah mhm. numéro yaa ngi noonu ci ci suufu écran bi jafe-jafe am doom mhm. kon képp ko xamante ni daal na la moo xam nga ne ci réew mi wala ci bitim réew fexeel jokkoo ci ak moom wàllu kàttan ci laa bëgg ñu taxaw moom itam ab diir waaw d'abord lan moo koy waral ndax nañ ne bari na trop waa xam nga loolu moom la si jiitu benn mhm. fo mën na koo waral parce que xale yi léegi dañuy fo mhm. ñaareel ba tamit jamono ji lekk bari baaxut mhm. te ñaari tamit wér-gu-yaram amatut loolu lépp day day suyee ci kattan ñaari kul la ëpp ak wér ñaari gën laa sàmmanteek li muy lekk ñaari moo lay ëpp kattan waaye si loolu la jàllee tamit kattan ngelaw ngelaw bu la duggee da dem ba am na ñoo xam ne ngelaw da lañu dugg seen biir day mën a am ngelaw seen wet yi di daw ñooñu fi ñu doon ngelaw bi egsi si oom bi dañuy néew doon lool ci mbirum sëy waaye bu mu ci mën a doon moo xam maanaam ngelaw seytaane waaw ngelaw seytaane mhm. koo xam ne daa mënut dara wala koo xam ne daa man tuuti wala wala wala ba mu ci mën a doon mu ne si ko leeral mhm. fii waaye kat na suñu borom am na garab yu may joxe yoo xam maa koy liggéeyal sama borom sama bopp mhm. képp koo jël di nga sant ci wàllu kàttan mos xam wallaay ndeysaan mos xam wallaay ndeysaan ñaata temps lay diire noonu boo ko jëlee kat daa trente minutes sa aajo faje insha ki ko jël ñaata temps lay diire ñaata temps lay diire bal. Mhm. bi fekkee ne xam mi ngi aji si kaw niiw kat nu mu toll ci moom. xam nga am na ñoo xam ne tey man nan buñ buñ toogee ni mën na yëg seen bopp waaye buñ demee soxna si duñ man am na ñoo xam ne bu nu demee sons dangay gaaw a egg. Mhm. mënuñ si ko leeral daal waaye kenn ku ne boo ma waxee. Mhm. niveau bi nga toll si niveau boobu lañ lay liggéey. ñu wàccee niveau bi toll. waaw ah. <laughs> mu ngi noonu sëñ Diakhaté ñëpp la fi nekkal. képp koo xamante ni rek jafe-jafe yi di la. boo ci eh. jokkoo ak ndoxum siti da koy faj. te yaakaar naa ñaar yooyu bokk na ci yiy causé. Mhm. Euh, néew kattan. walaay ndeysaan hémorroïde moo xam jën na moo xam jënut dañ koy saafara ndoxum siti yaa ngi wax loo xam ne tey bari waaye góor ñoo xam ne ndeysaan ndoxum cité moo leen sonal. Mhm. nii naa leen dañ leen liggéey nii naa leen nangam ndax ndoxum cité bu la jàppee day dem parce que sacré day dellu. day hmm? day dellu waaw day dellu. maanaam ñu doon bariwaat noo xam dañuy ñëw si yow ne man fu ne dem naa fa comme lu mën a yokk sàkkara mhm. naa fa jox naa leen moom nangam nangam boo ko joxee garabu ndoxam si bu ko bu ko jëfandikoo day sant yàlla ndoxum siti tamit day tax da ngay néew doole ci mbirum sëy moo tax ñun garab kat ngi liggéey day ànd ak ndoxam siti est parce que mu ngi noonu daanaka liñ ñu cëraloon ci waxtu mu ngi xëccu jëm ci jeex mm-hmm. euh, laataa ñuy yëkkati nag fokk ñu delluwaat tuuti ci actualité bi mm-hmm. Ousmane Sonko ko ne jàpp nañ ko mystiquement parce que keroog bi ñu tojee otoom ak li ñu ko sotti noonu wala boog li mu wax ne sotti nañu ko ko ak diiru li mu def hôpital tëraay boobu jàppoo ne mën nañ ko ci jekku non Ousmane moom jëkkoon ko ci mystique day am loo xam ne mënee su ko wax donte pexe yi bari na waaw man moo tax man la donte pexe yi bari na ñoom seen jëm sa doon mujj waaro parce que am na boo xam ne tey lan suul ci ay nag yi déewut mu ne su ko wax yàlla xam na ko waaye moom fi mu doon nii tamit dafa am ñu ñaanal ñoo xam ne yàlla xam na ne xamu leen dañ ko bëgg ne ngir jëm yàlla ci man damaa xam kilifa yu baax ñu baax ñoo xam ne dañ koy ñaanal am na benn soxna soo xam ne si ñebe xaadir moo ko yoroon. Mhm. mu bàjjan la. Mhm. mas na toog di wax mu ne dama mas a toog Ousmane Sonko di ko xool ba si yàgg sama sama ronkoñ ci di jël ma maraaxib mhm. ak xan jàng ko ñaanal ko léegi mhm. bu mu tëddee nii rek nelaw nii tuuti suñu borom wan ko mbooloo ma bari ma gis Macky Sall Macky Sall daal di daanoon nii mhm. xool ko bët yoo xam ne bëti jépp la mu nettali ma ko ma wax ko ñaan ko nangu na foofu laa ci mën a yem da jëm ci loo xam ne mënoo koo tas ba mu jeex comprendre nga xam nga tele ngay waxate mm-hmm, mooy mm-hmm, mm-hmm. doo wax ak Sénégal daa jafe da ngay junj rek su ko defee li ci des nag ki nga xam ne seq ngeen ko ban toog nga nga leeral ko dëgg-dëgg Ousmane gisuguma ak toogam ci réew mi waaye mbir mi dina ci am ndam waaye ci kàttanu suñu borom am na loo xam ne bu ko defoon tey gàllankoor yoo xam ne bu ko saafaroon tey yàlla mën na koo may ndam mu nekk président 2024 président 24 moom wax yàlla moom ah hmm. yàlla mën na ne ndax mbir yi soppeeku. waaw ah, mais nag wax ñu yoon yi mën a jaar pour seet si la wala ñi ko jege seet si la. man pour nga nga mën leen sanseel sanseel carte gi. sa borom rek laa koy seeral suba suba su ma ko bëggoon a. Hmm. dem si moom dinaa fa dem. su ma ko bëggoon a gis tamit dinaa ko am naa pexe yi ma ko gis. Hmm. am na ñu ma xam ñoo xam ne ba may dem si kon soor dinañ seeti boobu xam waaye man yooyu du sama wàll. du sama cër tamit comprendre nga. pourquoi sëñ Jaxate moom nangul dugg ci politique bi comme yenn sëriñ si yenn maraay ni ñu gisee ñoom ñu. xëy na xëy na du ma wax juddu du dara dama yàlla jéggal. Mhm. donte suñu borom euh, bu la bëggee layal dëgg dëgg dalay booleeg ay waajur yoo xam kenn du leen mën a jam. Mhm. waaye boo li ëpp solo si nit ki mooy ab yar moo tax arab du wax kan mooy sa baay. Mhm. kan mooy sa yaay man àdd bara. xataa yu jaaxiloon na ba nga réer a nii. wala ba nga sell nii. yar dafa am solo ci nit mhm. ki la yar nag na muy doxee ren ngay doxee am na loo xam ne du wàllam doo leen dégg si dara moo tax am na yoo xam ne tey du suñu cër te mhm. bëgg ñoo wax loo xam ne dañ say xeeb toujours wax loo xam ne tamit dañuy bëgg wax loo xam ne ku ko seetaan mhm. duñu mën a jam fenn te lii tamit ak jaamu yàlla mooy suñu yéene ndax yéene rek la yàlla di fay. ndama ahmalu binniyaati bu loolu jàllee loo yéene am sa pas-pas suñu borom loolu la see defal xam-xam bii ñu yor tey bu toogoon fan toog bari waar na ñoo xam ne du duñ leen xam ba du leen jaral mm-hmm. jamono fa yegg moo tax ñu koy tas ci média yi nii su ko defee nag toujours la ñuy wax képp koo xam ne sa aajo na ko yàlla bu ñu la xam bay jëflante yow mm-hmm. képp koo xam ne aajo na ko fay yàlla na ko yàlla tàggat indi ko suñu loxo su ko defee ñu jàppale ko sa loola bayre bi nga defal Sonko dama ko defal Ousmane Sonko moom si jëmum jëmum turam rek daa am bayran loolu ma wax ci li ma ci wax léegi rek loolu xam nga lu doy dafa doy waar de ay bu la ko tajoloon tey man fi mu doon sax alxames dama ko liggéey alxames googu liggéey allah xel ko yom fattaaxo ra saxu ci limu Ousmane Sonko mhm. di mille sept cent trente sept may mhm. loolu sa ma ko wax parce que loolu mooy limam li mhm. ma ko jàpp waaye nag nit ki moom ñaara boo xamut boroojam xamoo bidduwam xamoo waxtu mu fi nekk mënoo koo def dara képp koo bëgg a duma boo xam ne bëgg duma xam bi duma waxtu mu fi nekk mën nga koo duma ma baaxee fi tey ñëpp nag sëriñ si ñu ko xamut tey ñaan si xam-xamu biddiw mm-hmm. wala nit ñi nga xam ne tey am na itte di ko dox doxee te xamul xam-xamu biddiw mm-hmm. doomu aadama boo mën a gis diggante sept ak huit heures biddiwam dafay nekk sept ci suba ah, ak huit heures biddiw ba dana fa nekk ku mën a doon mm-hmm. suñ demee ba trois heures jàpp tisbaar jàpp trois heures ba dana fa nekk yi si des yëpp nag foofu mu ñëpp a ci yem yi si mhm. des nag moom yaa xam ku ci nekk day day am waroo daal waaw yooyu nag soo xam ñaar boo diiree du ma wax doo rate de yàlla mën na laa defal ndam ca loola macha allah mm. ma bàyyi la nga tàggatoo waaw xanaa sant yàlla mhm. euh, sant mboolem ñuy teewlo mhm. di wax ne képp koo xam ne aajum nartu faju bëgguñu laa xam ba di jëflante ak yow di ñaan yàlla ku aajum nartu faju yàlla nañ ko yàlla ñoddel indi ko suñu loxo te suñ borom defal na natt ja sa loola di jaay alxuraan. incha allah mu ngi noonu sëñ Jaxate la ñu àndaloon tey ci jotaay bi la di xale mbëggu ñëw borom kun wala sax borom solution. doon koo xamante ni ku yàlla baaxee la ci xam-xam waaye itam ci woyof goo xamante ni daanaka dem na ba képp koo xamante ni seq nga moom liggéey daanaka day dem ba mel ni benn famille ngeen. li ko waral nag mooy kóllëre gi nga xamante ni moom lay liggéeyee ndax ku mu xam Eh, déwén it day continuer di la xam eh, waxtu woo xamante ni liggéey ngeen di ngeen ci gis eh, lu kawe seeni i njortu jaajëfal ko bu baax a baax ci jotaayu waxtaan bi jaajëfal yaas bi woon ci technique bi ak képp koo xamante ni internet la buy ànd ak ñun ci Sunugal 24 ci bépp programme di leen ñaanal kooru jàmm jox leen dig dajee ci beneen invité incha allah jaageen jëf